asalaamaaleykum waa Alphie nuyu naa leen ziar naa leen sama gaa yi dikkati nañ waaw ñëwati nañ ak Noflay Food comme ni ñu koy defee saa su nekk tey nag mooy dernier épisode bi nga xamante ne ci la ñu fas yéene waxtaanee euh, moringa. voilà Noflay Food nag comme ni ma koy waxee saa su ne déclinaison euh, moringa ngay am nii ci sama table bi. voilà wan naa ko am na vidéo boo xamante ni su ma jógee léegi dama koy eh, jegeel wan la poudre baawa poudre moringa bi euh, graines yi nga xamante ni tey ci la ñuy waxtaan ak infusion yi nga xamante ni am na bu menthe am na bu verveine am na infusion boo xamante ni authentique la amul dara am na infusion boo xamante ni jinjeer lañ ci def bu saf saf ñi nga xamante ni cere ji dafa dañ ciy dem bu baax ñoom euh, infusion bi nga xamante ni bu jinjeer bi wala infusion verveine boo daqee cere rek euh, dóor ñaar ba ñetti kuddu cere rek daal di naan tuuti tuuti moringa bu ko defee <laughs> bu ko defee yëpp yi wàcc nga xamante ni ñaari kilo cere sax mën nga ko lekk sama gars yi <laughs> nee naa la euh, graine de moringa yi maanaam poudre bi graine yi wala infusion yi nga xamante ni Noflay Food voilà déclinaison moringa bi nga xamante ni ci graine yi la ñuy gën a ñëw ñëw ci infusion yi mais tamit ñëw ci poudre de moringa ba ci huile de moringa Noflay Food daf koy proposer clientèle am yi voilà comme ni ma koy waxee léegi rek ci waxtaan bi loo xamante ni moom dafay raxas deret loo xamante ni dafay faj jàngoro yi nga xamante ni mooy maladie du vingt yu unième siècle jar na def taxaw seetlu Noflaay fut nag gis ngeen produit bio yi nga xamante ni moom la teg ci marché yi mu nekk ay produits yoo xamante ni dañ leen saytu def leen ci ay normes hygiéniques yu doy waar yoo xamante ni da ngay dajji rek euh, infusé wala nga dajji rek lekk soxlawul raxas soxlawul dara voilà comme ni ma koy waxee saa su nekk rek ak Noflaay Foot jël leen numéro téléphone yu baax yi yéen ñi bëgg cure yi yéen ñi bëgg ci pack yi muy pack santé yi euh, pack santé yi nga xamante ne Noflaay Foot daf ko andi numéro téléphone yi ngeen di jël bépp renseignement bu ngeen bëgg euh, graines yi naka ngeen koy utiliser 15 jours nga koy jël wala 20 jours wala 40 jours bu ngeen wootee ci numéro téléphone di ngeen am euh, renseignement yi ngeen soxla yépp sama gars yi xamante ne waaw luñ ci wax rek du doy ndax moringa wax naa leen ko ca njëlbeen bu ñu jëloon émission chaque jour di wax ci vertu yi nga xamante ne ñoo nekk ci graine moringa yi du ñu pare waaw du ñu pare li ma leen mën a xamal rek mooy le bi nga xamante ni maanaam bienfait bi nga xamante ni moom la ñu war a gën a mën a taxaw seetlu mooy bu ñu utiliser euh, régulièrement euh, graine de moringa yi nga xamante ni moom la ñu Noflay Food di proposer dafay raxas suñu deret voilà lépp loo xamante ni nag day nettoyer sang bi day raxas deret bi ba mu set jar naa def taxaw seetlu waaye nag ci kaw nga mën a xam naka nga koy utiliser. na ay plan diététique yoo xamante ni Noflay Food def na ko pour yéen ñi nga xamante ni. yéen ay utiliser euh, gaamu Noflay Food li nga ci li ci graine de moringa ba ci infusion bi ba ci poudre de moringa bi. donc plan diététique bi nu muy demee ci numéro téléphone yi ngeen koy amee ndax graine de moringa yi dangay am cure dix jours wala da nga koy utiliser 40 jours wala da nga utiliser une semaine. nekk ak jàngoro bi nga bëgg. mu faj ko léegi loolu yëpp su ngeen bëggee renseignement yooyu da ngeen di woote ci numéro téléphone yi ngi di di affiché wu di ngeen am renseignement yi ngeen bëgg yëpp man nag bu ngeen ma xoolee xam ni coono coono vacances yi ba léegi des na waaye nag sama euh, infusion moringa verveine bi man laa sàllool rek et di ko conseiller voilà di ko conseiller sama mbokk yi nga xamante ni séeréer yi wala <laughs> sama mbokk jàllo jàllo yi nga xamante ni dañuy dem bu baax ci cere ji Euh, moringa bi laa leen conseil parce que digestion facile ngay am foofu waaw loo xamante ni dafa am fibre blé blé yi nga xamante ni mburu yi ñu lekk yépp ci lañ koy ci lañ koy jëlee pat yeeg li nga xamante ni moom la ñuy lekk moringa moo ko ëpp fibre euh, presque huit fois voilà euh, banaan yi nga xamante ni moom la ñuy lekk pour mu apporter ñu potassium bi nga xam ne suñu yaram daf ko soxla moringa ëpp na ko quatre fois waaw li nga xamante ni mooy vitamine C cawarte bi nga xamante ni moom laay wax léegi sama coono bi ma am Euh, nga xamante ni léeg-léeg dañ naa la sax nga naan vitamine C soxlawul su fekkee am nga infusion moringa bii di ko naan ndax euh, sept fois la ëpp euh, la ëpp vitamine C que orange voilà wax naa ci calcium calcium bi nga xamante ne meew yeeg yaawur yi en général fromage yi moom la ñuy jox moringa bi ëpp na ko quatre fois buñ koy utiliser voilà moringa am na vitamine vitamine yi ma cité léegi muy vitamine A di vitamine B vitamine C vitamine E wala vitamine K moringa am na li nga xamante ni mooy euh, fibre fibre yi sunu yaram soxla moringa c'est riche en potassium c'est riche en zinc c'est riche en en magnésium voilà moringa c'est riche en sélénium waaw yooyu yëpp mu nekk ay vertu yoo xamante ni souvent dañ koy dem di ko wuti ci aliments yi nga xamante ni moom la ñuy faral di di lekk voilà wala di ko sax wut ci ay garab. ci ay médicament donc nag lii nga xamante ni mooy moringa sax fii si Afrique voilà ci sunu naaj bii nga xamante ni euh, waaw ñu presque bokk nañ ci dëkk yi ko yàlla jagleel da nga koy fekk ci moringa bi waaye nag li ngay am ci infusion bi ci wàllum bienfait euh, ba léegi bokkul ak li ngay am ci euh, poudre bi nga xamante ni moom laa am ci sama ginnaaw bokkewul ba tey ak fait yi ngay am vertu yi ngay am ci graine bi graine bi moom ñëpp ko war a am graine bi ñëpp ko war a sàlloo graine bi graine de moringa bi ñëpp ko war a ñëpp ko war a utiliser voilà parce que loo xamante ni dafay nettoyer deret maanaam dafay purifier sunu sang booster sunu organisme donc loolu di ko utiliser dafay baax ndax rein yeeg euh, colon bi lépp lay nettoyer voilà ba tax na graine yi nga xamante ni li ma wax léegi plan diététique yi euh, Noflay Food def bu ngeen wootee ci numéro téléphone yi di ngeen am renseignement yi naka ngeen war a utiliser graines yi ak kan moo ko war a utiliser jigéen ñu wandu lor nag wala femme enceinte yi ñoom graine bi concerné wu leen su fekkee euh, femme enceinte yi wala jigéen yu wan yu yu wandu lor ñoom pluto ci euh, poudre bi ak infuses yooyu parce que mooy gën a woyof ci ñoom. ñu wax si mooy pack yi nga xamante ni Noflay Food daf ko andi euh, jagleel ko clientèle am yi nga xamante ni ñoom dañuy bëgg toujours pack santé de fer parce que kenn wératul ah kenn wératul maladie du vingt et unième siècle yi mag ndaw góor jigéen ñëpp lay laal voilà. muy euh, AVC lañ koy wax maladie cardiovasculaire wala li nga xamante ne mooy jabet mu fees dell ci sunu réew wala li nga xamante ne mooy hypertension nga xamante ne bàyyeetul xale bàyyeetul ndaw voilà li nga xamante ni euh, mooy moringa muy euh, plante miracle bi nga xamante ni sunu borom moo ñu ko wàcceel waaw muy plante miracle boo xamante ni scientifiquement gis nañ ni mooy plante bi ëpp vertu ci planète bi xam nga nag bu ñu nee plante bu ëpp vertu ci planète bi mooy du lu ndaw waaw parce que loo xamante ni euh, li ñuy wax nul n'est prophète chez soi dafa am loo xamante ni dañ koy am mu nekk nii nii nii sunu sunu sunu bët mais du ñu ci duñ ci profité voilà du ñu xam vertu yi du ñu xam njëriñ yi ndax man. ba ma commencé campagne ñu euh, noflaay foot bi ba léegi li ma jàng ci Moringa ba may alfi ba léegi xaw ma ko woon waaw parce que tamit ku nekk ak ci objectif bi ngay concentré wu ku nekk concentré wu am na ñoo xamante ni dañuy bëgg euh, di lekk ay salaat am na ñoo xamante ni dañuy bëgg di lekk bio voilà yooyu yëpp dafa dajaloo euh, ci Moringa bi nga xamante ni naam njëg bi cherul sax noflaay foot comme ni ma koy waxee saa su nekk dafa am ay collaborateur di livrer partout dans le monde su fekkee Suisse nga nekk wala nga nekk France wala nga nekk Belgique wala nga nekk Espagne soxla ci nebedaay bi Neflaay Food bi boo wootee ci numéro téléphone bi dinañ la wax naka lañ la ko mën a euh, livrer. waaw retour yi nag euh, positif yi ñi ngi koy jot Neflaay Food mi ngi ciy jot euh, ñi nga xamante ni dañuy woote di bàyyi seen message ñi nga xamante ni dañu xam ay vertu moringa. seen message yi yëpp feedback yëpp a ngi jàll ci ci ci Noflay Foot di leen wax rek que ni Noflay Foot mi ngi recevoir seen message yëpp mi ngi recevoir seen commentaire yëpp et puis euh, lu mu leen jaajëfal rek xeet na ko. pack yi nga xamante ni pack santé de fer bi ci la bokk bu ngeen wootee di ngeen am renseignement yi ngeen soxla li ci mel ni pack découverte pack découverte bi pack découverte bi tamit. Euh, am na lu ko composé moom tamit su ngeen bëggee xam lan moo ko composé di ngeen woote ci numéro téléphone bi am na pack perte pois parce que am na ñoo xamante ni dañuy bëgg ventre plat ñi nga xamante ni dañuy bëgg jeex voilà infusion yi ak tey yi di jóge fële kenn du xam lu ci nekk ñii di bëgg jeex di bëgg ay ventre plat bu ngeen di wootee ci numéro téléphone bi dinañ leen wax naka ngeen utiliser euh, moringa bi cure ñaata jour wala ñaata mois ngeen koy utiliser pour mën a perte pois naturellement ba pare am bien bienfait yi nga xamante ni euh, moom la sa yaram soxla parce que perte pois boo xamante ni ba léegi sa yaram dina am calcium ba léegi sa yaram dina am fer ba léegi sa yaram dina am euh, potassium loolu euh, moringa rek moo ko mën mais ci kaw ngeen woote numéro téléphone bi pour mën a am renseignement yu leer. voilà pack fraîcheur bi nag pour ñi nga xamante ni dañu bëgg ay cocktail bëgg ay smoothie voilà bëgg ay jus ñoom ci pack fraîcheur bi tamit la ñuy woote parce que foofu defal nañ leen fa lu ngeen xamante ni di ngeen mën a defar seen ay cocktail mën a defar seen ay smoothie voilà mën a defar seen ay jus wala seen ay glace te du ngeen sondu benn moringa bi da ko war a comprendre euh, dem ba ci poudre bi boo jugee ci poudre bi yaa ngi ci infusion yi infusion yi nga xamante ni euh, Noflay Food daf leen andil saveur menthe euh, ay ingrédients toujours naturels la ñu jël jaxase ko ak euh, moringa bi am nga infusion yoo xamante ni euh, verveine lañ ci def am nga infusion yoo xamante ni jinjeer lañ ci def voilà ku nekk xam na vertu yu jinjeer bu de bu tasee ak vertu wu vertu wu euh, moringa beneen beneen beneen leneen lay nekk ak li nga xamante ne mooy infusion authentique bi nga xamante ni moom amul dara am na ñoo xamante ni dañuy bëgg suñu utiliser moringa bi du am benn saveur waaw ñoom infusion authentique bi nga xamante ni nof euh, moringa bi kase la ñu jël witti ko wowal ko et puis euh, def ko ci ay normes hygiéniques yu am solo Noflay Food euh, bio lay defar parce que li ñuy def li Noflay Food di teg ci marché bi amul benn pesticide voilà ba pare dañ ko tànd set setal ko ba mu set wecc yow da ngay génnee ci paquet bi rek daal di def sa ndox bu tàng def sa infusion wala nga def ko ci sa lekk wala nga def ko defar sa glace wala nga defar sa cocktail yaa xam lan nga ci bëgg defar Euh, Alphie Cuisine mi ngi ñëw toujours ak Noflay Food bu ñu moringa bi dinañu ñu ñëw ci poudre de baobab the king du superfood waaw pour na ko buy bi nga xamante ni li liñ ci war a xam comme moringa bi bëri na waaw bëri na léegi li ñuy li ma li may li may tëjee rek mooy euh, kër gu nekk war nga mën a am sa potu graine de moringa bii nga xamante ni day raxas suñu deret voilà nettoyer suñu sang purifier ko ba pare booster suñu immunité voilà euh, li nga xamante ni mooy cawarte sunu mbokk yi nga xamante ni dañu am liggéey yu metti liggéey yu actif wala liggéey yu stressant yi nga xamante ni euh, dafa sonal ñëpp voilà graine de moringa bi moo ci baax waaw parce que dafay dafay wàcce stress ba pare dafay wàccee coono su fekkee na nga am ay dures journée yoo xamante ni da ngay liggéey ba sonn boo ñëwee defar sa infusion verveine wala sa infusion menthe wala sa infusion jinjeer anyway yaa xam ban nga ci ban saveur nga ciy taamu. lekk ba suur naan sa infusion daal di jëlaale sa benn graine de moringa euh, naan ko war nga war nga yëy ko voilà man damay préférer mastiquer ko parce que j'aime bien goût bi mu am dangay boo xëyee da ngay mel ni moteur bu ñu redémarrer à zéro ca cawarte bi ngay am <laughs> doo ko mën a comprendre tant que essayer woo ko ah man de ba ma koy ba ma ko utiliser ba léegi njëriñ laa ci am ba noppi di remercier di remercier kilifa yi nga xamante ni ñi ngi toog di seetaan Alphie Cuisine di déglu message yi nga xamante ni moom la ñuy jàllale ndax ñun dañuy jox rek ñu ñëw euh, étaler leen juk jukki leen et puis daal di leen wax loo xamante ni seen njëriñ laa ci gis seen bien bienfait tamit laa ci gis léegi nag du ma du ma du ma du ma du ma yàggal du ma yàggal benn yoon jël leen numéro téléphone yi bu fekkee Dakar ngeen nekk euh, dama ko doon wax wax naa ko semaine passée lundi ak jeudi ngeen di euh, passé seen commande non les jours. ngeen mën ngeen woote ci numéro bi passé seen commande livraison yi nag lëndi la ak jeudi livraison yi lëndi ak jeudi lañ leen di woo livre leen li ngeen commandé ci euh, dimanche bi wala lu ngeen commandé mardi wala lu ngeen commandé euh, mercredi voilà euh, Noflaay Food nag mi ngi leen di jaajëfal ci feedback yi di leen jaajëfal ci message yi et di leen wax ni képp ku ci nekk képp ku ci am question wala képp ku ci am loo bëgg a xam ci euh, li nga xamante ni mooy Moringa bi même suñu deful vidéo da ngay mën continuer di woote ci numéro téléphone bi pour mën a am ay renseignements ak ñi nga xamante ni tam jigéen ñi nga xamante ni dañu bëgg euh, jaayaat revendeurs yi ak ñi nga xamante ni amuñu liggéey di bëgg xam lan la ñuy occupé woo yooyu yëpp bu ngeen jegee numéro téléphone yi di ngeen ci am ay renseignements parce que ñu bëri ñi ngi woote pour di ñu wax ni dañu bëgg jaay jaayaat. produit Noflay Food yi waaw Noflay Food entité bu mag la boo xamante ni euh, waaw li mu root fees na dell te mën na ci xellil ñeneen ñi <laughs> bu fekkente ni daal bëgg ngeen liggéey voilà bëgg ngeen jaayaat ci euh, produit Noflay Food yi jàpp leen ni mën na nekk si kaw ngeen ni wootee ni ci numéro téléphone yi ñu jox leen renseignement yi ngeen soxla yépp waaw kañ man nag moom ci tàggoo nii rek ma war a euh, daal di def sama continuer samay activité fi mu nekk ni kaas bi bu ñu coupé nii laa koy naanee ba mu jeex tàkk. Euh, moringa verveine bi laa def voilà sànni ci tuuti fleur d'oranger ak lem ay ba jaajëfal naa leen sama gars yi on se donne rendez-vous très bientôt ci Alphie Cuisine ak Noflay Food waxtaanee the king du superfood muy euh, poudre de baobab bi. am na tamit euh, yi ñu jagleel xale yi am na émission yoo xamante ni ay recettes ay conseil ak ay euh, plan diététique pour xale yi lépp loo xamante ni xale yi dañ koy soxlo ci poudre de baobab ak li nga xamante ne mooy moringa Alphie Cuisine dina ci ñëw ànd ci toujours ak Noflay Food jaajëfal naa leen sama gaay yi on se donne rendez très bientôt ci Alphie Cuisine jaajëfal naa leen kenn du yéen.